Euh, dañuy dem euh, seeti nanet moomu déglu ko ci ay kàddu yu ndaw rek euh, léegi léegi muy Aminata Cissé moom malaat bi comme ni ñu leen ko waxee léegi rek li mu am leucémie aiguë la ñu dem déglu ko daal dellu soit léegi ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. yëf na moom métti na méttiwul mais damay sant yàlla rek xam ne yàlla mooy teg nattu parce que dama jékki saay rek per de pois waaw ñi ma xam dëgg xam nañu melu woon nii. damay perte pois am fatiguement sama tànk yi di metti du ma gis waaw noonu la ma dikkee ma ne xëy na fatiguement la rek damaa sonn man loolu laa ko jàpp ma ko xamee yàggul parce que dañ ma ko doon nëbb parce que maa ngi doon duutewu naan lii la wala du lii waaw mais nag bi ma xamee damaa jàpp ni cancer la mais xaw ma si woon ban la par la suite nag bi nit ñi commencé dugal statut ci laa soogee xam ne loolu cancer du sang la mais dama cee booleeg euh, sant yàlla. som bi moom man bu ma ko gisee sax damaa tiit ndax damaa xam ne loolu dafa bëri samay mbokk amuñu ko waaw waaye buñ ko amoon tamit nit jox nañ ma ko waaw samay mbokk suñu amoon wér jox nañ ma ma wér ndax taxawu nañ ma façon taxaw bu ne taxawu nañ ma épisode bi gën a metti man mooy jour bi mu ko yëgee waaw jour boobu moom damaa tiit. su ma gëmuloon yàlla moom moom xaw ma nu may def mhm. mais ma ànd ci ak dal waaw dama cee ànd ak dal bu baax damay tëdd ba guddi di jooy mais dama cee ànd ak dal bu baax sax. sama yaay moom daf ma ko doon nëbb moom lu ma ko waxee li mënuma dee du loolu. ni mu ko dundee moom dafa ma koy nëbb mais xam naa ni metti na ci moom waaw ndaxte nga tiim sa doom. ñu ne la dafa cancer nga koy nëbb xam nga loolu dara gënu ko metti maa ngi lancé appel nii ku mu mën a jàppale rek mu jàppale ma xoole moom amu fayam wax dëgg fa yàlla souvenir yi ma mën a wax si moom bëri na waaw mais benn rek laay bi ma ñëwee opp bi ma ñibbisee waaw xoolul ni ma ni ma meloon waaw dafa ñëw lonku ma maka fooree mu reetaan loo mag yëpp waaw parce que bi may soogee ñëw ndax mënoon na maa gis daw mais defu ko waaw maa ngi tudd Aminata Cissé waaw maa ngi am feebar bi nga xamante ni lisimi la tudd leucémie aiguë ñu gën ko xam ci cancer du sang waaw maa ngi lancé appel ñëpp di woo ñëpp waaw somme bi nag bëri na bëri na trop benn nit mënu ko waaw waaw some bi mi ngi toll ci 188 million waaw maa ngi lancé appel ñëpp bonne volonté yëpp pour ñu évacuer mu foofu pour ñu faj ma pour defar ma greffe de la moelle osseuse maa ngi tàggoo di remercier sama mbokk sama mbokk sama famille yëpp maa ngi leen di remercier aw ma seen fay di leen remercier yéen ñi tamit ñëw di remercier bonne volonté yëpp waaw ñi ci jàpp ñëpp maa ngi leen di remercier waa di remercier Fadel ak ñëpp macha allah merci.